Bienvenue sur Salam Vision. mbokk yi yañu yañu euh, may ñëw may ñëw may ñëw ah may ñëw may ñëw may ñëw waaw ah, waaw waaw nañ bàyyi nii nañ bàyyi nii baax na non nii baax na nii baax na waaw waaw waaw loolu day métti day métti. waaw léegi. ah oui. sama xanaa ay ay ay airport. non booy defee airport doo dégg. jaajëf jaajëf waaw léegi. eh bu daw euh, mbokk yi ñu ngi fii ci Pikine tali bu mag inauguration agence bi nga xamante ni kii di président Mamadou Guèye amal na ko fii ci euh, siège bi nga xamante ni tey jii mooy siège convention citoyenne neneen tey jii nag euh, xew-xew bi euh, rëy gi mu rëy mooy euh, président Mamadou Gueye dafay jagleel ndaw yi nga xamante ni ñoo dëkk ci ban bi li nga xamante ni benn agence boo xamante ni day jàppale képp koo xam tout tànk nga képp koo xamante ni jeune nga am nga projet wala am nga idée de projet mu war la fas yéene centre bi tekk na loo xam ne portail la pour képp koo xamante ni bëgg nga ñu jàppale la ci euh, projet yi nga xamante ni am nga ko li nga xam ni kay président de la République def na ko nga nga mun see jot ah, ñu ngi nii di gis eh, kii di président moom Mamadou Lamine Gueye mooy yegg si nii président de la convention citoyenne neneen mu ngi nii di ñëw fii nga xamante ni mooy siège bi ci jour inauguration bi nga xamante ni tey moom lay def fii nii si agence bi nga xamante ni créé na ko pour pour les jeunes ah de la banlieue euh, président Mamadou Lamine Gueye mooy yegg si nii ñu gis booloo bi bëri nañ euh, torop euh, di ko xaar pour mu mën a ñëw Euh, def li nga xamante ni mooy liggéey bu am solo bi nga xamante ne amal na ko fii ci Pikine. dans un instant kii di président dina génn euh, jàkkaarloo ak euh, ndaw ñi jàkkaarloo askan bi jàkkaarloo ak waa pikin xam nga gisee ñu ngi gis protocole bi ñu ngi ñu ngi ñu ngi xool ni mu mën a wàccee fii. voilà. mbokk téléspectateurs yi yéen ñii seetaan en direct fii ci page officielle bu président Mamadou Gueye président yegsi na fii si Pikine euh, tey jii nag euh, soleil daje bi wax nañ ko mooy inauguration agence bi nga xam ne créé na ko fii ci Pikine agence bi nga xam ne ni jàppale képp kuy ndaw ah képp kuy jeune di porteur de projet wala ki nga xamante ni tey jii da nga am idée de projet boo ñëwee fii si agence bi lan la siy jàppale ah. mu initiative bu rafet initiative boo xamante ni ñëpp ñëpp ñëpp ñu ngi koy rafetlu ndax tey jii lii li nga xam ne tey ay financement loolu lañ nekk loo xam ne nit ñi dañ koy wëri ba Dakar mais président Modou Gueye ne ndaw dootul dem ba Dakar benn ndaw dootul dem dootul dem ba feneen di di woo ñi nga xamante ni ndaw ñi euh, tey Big Matar lan ngay wax ci initiative bi nga xam ne président Modou Gueye def na ko ak ci teewaayam. après nga ñëw waaw dañuy wax ne ki doon def lu rëy pour le président de la république monsieur Macky Sall defete na lu rëy. muy président Modou Gueye bi nga xam ne si kenn dootu ko présenté kenn ndax ku xool tey fii ni mu yaatoo ak mbooloo bi dèjà li nekk ci kaw sax euh, moo ëpp li nekk ci suuf kenn mun na wax li fi nekk ndax lan di soutenir président de la république comme ni mu ko yàgg di defee ci affaire fonds financement fonds ji bi yeeg PS bi mu doon def PS bi mu doon def fan yee mm. tey la ñëwaat di euh, inauguré fii benn centre d'orientation pour képp koo xamante ni si bëgg nga financement wala bëgg nga projet te mënoo ko bind ñu yëpp vraiment encore une fois yow tamit Diouf ñu ngi lay gërëm euh, sa participation am na solo lool xaaim tam parce que seen a en direct en direct si Ba Sel Amadou Gueye. naka nga gisee initiative bi nga na ko fii tey. waaw rek comme d' habitude ah rek ni ko président waxee woon dafay war dafay na parce que bi ñu jógee ci foire bi ñu génnee muy foire PSE bi waxoon na ñëpp ne leen dina ubbi benn centre d' orientation et d' boo xamante ni du ci jublu dara lu dul orienté euh, femmes yi ak jeunes yi nga xamante ni ñoo nekk au niveau de la banlieue pour ñu mën bind seen projet mën a déposer seen projet ñu mën leen financer comme ni ko président de la république bëggee comme moom loolu rek moom moo ko ñor dox au service du président et au service tamit de la banlieue moo tax muy ménagé wul benn effort ah ménagé wul benn effort mi ngi def li mu mën ak li mu mënul pour fexe ba lii nga xamante ni président génnee na ko te askan wi tax askan wi jot ci. waaw sama doo modo loolu la quoi li li li mu digoo woon askan wi daal moom la leen di defal rek mooy centre d' orientation et d'accueil boobu. président mu ngi génn seen xarit président. waaw d' accord kon administrateur waaw waaw waaw administrateur moom xam nga ne bu ñu ko waxee rek daanaka lu bari si parti bi moom la parce que dafa ànd ak président Mamadou Gueye nangul ko wóolu ko di di di di di liggéeyandoo ak moom ci loo xamante ni wax dëgg yàlla ménagé wu ci benn affaire ba effort ba pare fidèle si moom aussi ah fidèle fidèle honnête sérieux waaw yéene bu président Mamadou Gueye am rek ba xalaat ko rek at mi mi ngi def kéemtalaay kàttanam pour jëmmal loolu ci askan wi nga xamante ni mooy askanu banlieue bi. ñu gis ni mbooloo mi mbooloo mu bëri la ñu ndaw jigéen ñi surtout ñëw nañu muy si kii nga xam ne président Mamadou Gueye par rapport defoon na manifestation yàggul. tey ñëwaat nañu ñu waat sëñ Khadim naka gisee teewaayu jigéen ñi fii ak ndaw ñi. kontaan ci ah ci ak di xam ni rek li leen président Mamadou Gueye waxoon bi mu leen woowee ñëw nañ te bi mu waxee ak ñoom dégg nañ ko. parce que dégg ko moo tax tey jii bi mu leen woowaatee pour ñu war a dajawaat ci centre d' orientation ak ak bi ñoom ñëpp ñu teewal ko ñëwaat. fas yéene ànd ak moom ci initiative boobu nga ni am na ko ak bëgg boobu nga am na ko ci yomb ak yéene ji ça veut ni kon woote bi président woon ba ñu wusi ko bi mu waxee ak ñoom dégg nañ ko kon dégg-dégg boobu ñu am ci moom nag moom la fas yéene loolu ñu mën lu dul bëgg ci ndaw ñii dañ daan Dakar def ba feneen di déposé ju mel ni affaire yi woon si lu ñu war a jot ñun mais président dafa xamal nit ñi ne fii war nañ def na toog wu jartul ñu dem ba Dakar président loolu mu def rëy na trop. rëy na te xam li tax mu def defee du dara ah, dafa xar tànk tubayam ci fexe ba lépp lu banlieue war a amati ci askan wi rek ci ci ci nguur bi rek wala lépp lu nguur war a génne pour askan wi askanu banlieue rek ñu fexe ba askanu banlieue bi jot ci seen wàll te loolu dara du taxul ñu koy mën a am lu dul ñu am ku leen di taxawal ak ku leen di teewal te moom dafa fas yéene taxawal ak teewal banlieue bi ànd ak président de la république ndax président ah. xam na loolu xam na ne lu mel noonu moo ko manqué mu ne ko tey nag fas yéene naa a fort mooy président àndu def président xaaruñoo ko kaay nga def def yàgg naa yàgg na koo def yàgg na jàppale ndaw yi yàgg na jàppale famille yàgg na jàppale ñu bëri te tey jii kon tey bu defee lii dafay nekk une quelque chose effectivement loolu nga wax moo wér président euh, hmm. musul xaar président Macky Sall ci dara lépp lu ñu mës di woote wala lu ñu mën di def ci gox beeg lu mën di alalam la ciy jiital moom la ciy def parce que nag li tax mu gëm loolu dafa gëm nii day laaj lépp ñëpp te booy laaj lépp ñëpp boo yoree lenn kenn da nga koy def muy lépp ñëpp loolu nag moo tax moom alal la mu jël ko def ko alal li ñëpp loolu dana tax ne lu ne ko nee ngi ci moom loolu rek la la la gëm loolu la lay dox loolu la loolu la loolu la loolu loolu la mës a prôné moo tax ci loolu rek lay dox waaw kii kii di président Modou Gueye mu nii di génn muy doomu banlieue fier ci représenter li nga xam ne mooy la banlieue nekk koo xamante ne tey ndaw ñi bu nga gisee sax dañuy dañuy am yëg moom effectivement ndaw ko bëgg parce que dañoo xam ni ku mel ni moom dafa jafe politicien boo xamante ni loo wax yéene nga ko lépp loo àgg jëf ko da koy jëf doo wax mukk loo jëf jërëjëf euh, jërëjëf sëñ Xaariw président mu ngi noonu président Mamadou Gueye mu ngi nii di dugg si. président Mamadou Gueye mu ngi nii di dugg si ah. fi nga xam ne si mooy siège bi nga xam ne siège bu COPACEL tey nag du bés bu rëy. grand grand da ngay da ngay grand. bés bu mémorable boo xamante ni kenn dootu fàtte. un jeune de la banlieue mooy tey. moo am euh, yéene.

Bienvenue sur Salam Vision.